سرمدا ومني تقبل jërëjëf euh, sëñ Cheikh Amar yaak euh, équipe bi nga àndal sëñ Fallou Ndiaye ak euh, sëñ El si la Sylla jàngat bi du weesu nit ñi boo leen di woo ci sëñ Touba wan leen sëñ Touba saa yooyu ko ne dañuy gën di sawar boo gisee 2007 ba nëgë ni saa yu Serigne Cheikh wootee liggéeyub Serigne tubaa ku ñëwoon doo tayal ku ñëwutoon bëgg a ñëwaat dañu dañ cee gis seen bopp liñ ci gisee seen bopp mooy dañ cee gis sëñ Touba waaye buñ ci gisutoon sëñ Touba ba tey ñu bari xeddiku nañ ndokk ba nga xamee ne saa yi woote ci sëñ Tuubaa lay woote te ku ñëw danga fekk sëriñ Tuubaa sëriñ Saliou dafa des jeexital ci ci xoli doomu adama yëpp loolu moo tax ndaw ñi génération bi daanaka koo ci seenu mu gën ci barke sëriñ Saliou ma nga takk njëllum sëñ saaliwu loolu mooy euh, li muy wane mooy li ci xol bi faaw manifeste wu ci cër yi te sëriñ Saliou daanaka bu ndaw ñi xamee ab liggéey ci ay tool ci moom lañ ko xamee euh, moo tax 91 ji mu njëkk a woote xelkom ba nëgë ni daanaka fi mu ne kër yu ne boo demee da nga fekk ne am nañ matériel xelkom gone yëpp xam nañ koom démb rek am na ku may wax ne ma dafa am koo xam ne da koy wax ne ko suy yar soxnaam danaan ko yow danaa la yóbbu xelkom pour ñu yaral ma la te moom ci boppam mosut a ñëw xelkom kon daa yàgg a dégg koom ne barabu yarukaay la fii nag suuf la soo xam ne suuf suñu defaree nit la suuf suñu defaree nit boo doon seet li fi defaroo ci ay doomu aadama ëpp nañ ay junni junni yoo xam ne jëmmi suufu xelkom moo leen defar waxuma nag ñi fiy jàngee ak ñi fi tarbiyoo waaye ñi nga xam ne dañoo baaxoo di noote suuf si di ñëw xel koom defaroo nañ fi loolu nag moo amaat ren jii ku ne xam ne ne tool yi ren la gën a yaatu mboolem it ren la gën a bari eh, liggéey bi ren la gën a gaaw ndax ñun bu doon xool suñu liggéey bi dañ naan eh, daanaka ci 48 eh, heures lañ ko liggéey liggéey bi lépp te boo demee dal boo dem loolu nga fay fekk mbooloo mu noonu nga fay fekk kon loolu mooy tegtale ne kii woote jàmbaar la waaye ñuy wuy si itam ay jàmbaar lañ fàttali ko ci yeneen jàmbaar di Cheikh Amar di doomi Serigne Cheikh di taalibeem di koo xam ne dundam gépp ci xel koom la nekk kon bu ko yàlla tegee am am ndog xol ba ñëw na dooleem ñëw na alalam ñëw na donte jëmmam rek a ñëwut itam kon ñu ngi koy fasaale moom itam mu yàgg koo taxawee ni mu ko daan taxawee di sant ñëpp di leen di di la gërëmaan nag. ñaanal sëñ Cheikh Saliou mbake mu yàgg fi moom it yàgg liggéeyal sëriñ bi di ñaanal sëñ Mountakha. moom it mu yàgg fi lool di ñaanal xalifa Baye Fall yi moom it mu yàgg fi lool di ñaanal lislaam yëpp ak yéen ñi nga xëy yéenay jël euh, liggéey bi ñu ngi leen di ñaanal ci barke borom Touba kaw rek waaw waaw Cheikh ñu ngi koy ñaanal ci barke sëñ Cheikh Saliou mu mu liggéeyal barke sëñ Moustapha déwén bëgg nañ koo déggaat ci xel kom gis ko jaxaran ànd ak moom ci waar wi déwén loolu ñu ngi koy laaj sëñ Saliou waaw ñaan nañ ko ko te laaj nañ ko ko ndax man na ko waaw loolu moom wax nañ ko sëñ sa sëñ Cheikh te dégg nañu sëñ Moustapha dégg nañu waaw Cheikh Amar moom na ñëw nu dox ndax mun ñoo bañ a dox waaw jërëjëf. waaw sëñ koy ñaanal bu baax a baax a baax yàlla fëgg boppam yàlla mayaat ko wér yàlla delloo ko waat ak coobareem ndax eh, sant yàlla rek la ñuy def ndaxte loolu ko dal. lu ko lu gën a néew loolu dal na nit mu des ca kon dañ koy ñaanal bu baax yàlla mayaat ko wér ba mu continuer waat di liggéey di liggéeyal Serigne Touba ndax képp xam na ñëpp xam nañ ne jàmbaar yi koom la mais aussi jàmbaar la ci yoonu Mouride kon ñu ngi sant bu baax di leen gërëm bu baax ci liggéey bi jërëjëf. Cheikh Amar mi nga xam ne tamit ndeysaan moo doon jëwri ni Xelkom te yàlla dogal xëy na euh, sunu borom dogal ren ñëwut waaye pas-pasam fu mu mën a ne rek liggéeyal Sëñ Tuubaa ci ne yàlla na ko yàlla fëgg boppam yëkkati ko euh, te gën koo yokki xéewal ba lim daa liggéeyal Sëñ Tuubaa lépp continuer ak mbay am ma rek Siidek Cheikh Abdou am ma rek njabootu naar yëpp ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm. di ngi sant nag génn jëm Cheikh Amar. jàmbaari lislaam gars yi dañuy wax jàmbaari murit yi waaye jàmbaari lislaam jàmbaari doomu aadama Cheikh ah, Cheikh Amar irxam ja Sëñ Tuubaa waxoon loolu la doon doxe ku yàlla bind rek bëgg na laa jariñ bëgg na laa yërëm bëgg na laa yor kon loolu nga xam ne moo moo moo moo moo dum ndox sax gara la buñ ko tappal ngir yomal xayaam mu bokk ca ñay ram kon si Amar faj naw mar joxe na ñu marine am na yoolu safa ak wa kenn du ko amer de kenn du ko mere kon yal na yàlla defal ñëpp jàmm defal ñëpp tawféex ba ku ci ne sa dund mel ni mu raakeem nen mu jaxasoog nettatooy ginaar boo jogee xel koom. wallaay wax nga de wallaay daaw daaw ci heure bi rek man moom daje nan fi ndeysaan muy ku baax amoon pësteef ci liggéey bi Cheikh Amar waaw ren nag dégg naa ñu ni dafa tawat yàlla na ko sama borom saafara ba mu siwaat ci liggéey bi sëñ Saliou bii nga xam ni jàmbaar la ci kenn mënu ko ci voilà loolu moom loolu wallaahi loolu moom yàgg nañ ko ko xam bàkke nañ ko ko waaw bi tey ji xel yëpp dem na ci moom. daaneel daaneel rek. maa ngi sant nag. nee na sant rek. mboolem. mboolem. ku sa jàpp ci liggéey bi. ku sa jàpp ba xel kom sosoog léegi. ba xel kom sosee ba yal na yàlla defal ñooñu jàmm. nee yal na yàlla na ko yàlla defal euh, euh, Cheikh Amar. nee na yal na ko yàlla euh, ku ne xam na ne da daa ñëw fii. ba fii ma nekk. ba seex sa mbokk moomu. seex moo ko boole noo moom. boole noo moom. kon ala kulli haal. su ma ñëwul su ñëwul it. sama xol. xolam. ak xolu sëñ seex. seex. daa daañ ko sant. daañu ko sant. daañ ko gërëm. biig rek la ma mujj a ma. nee na biig rek ko mujj a ko. sëriñ Cheikh yónnee ma teraanga yu bari. moom xam nga du wax ne yónnee naa teraanga. ndax xam nga waaye sëriñ Cheikh ne yónnee na ma teraanga. ndax ndax ah, gaaw gaaw gise nan. waaye. waaye. keroog Cheikh Mamadou Mountakha wax naa ak moom. wax naa moom. ndax man sama nit nag. ndax nee sama nit nag. la. sama fu ma jëm yóbbaale ko. fu ma jëm dama koy yóbbaale. lu metti métti métti. damay ànd moom. damay neex neex. lu damay ànd moom. damay ànd moom. waaye boo doon laaj seex ku ko gën a dimbale ci àdduna. waaye boo mu tudd ma nag. amul lu ma mën a defal. nee a defal. lépp li ma ko defal. lépp li li waaye nangu nag. ci sëñ Touba. ci yàlla jox lay milliard. nga di ko di ko joxe. ci sëb sëriñ. ak say bokki sëriñ. ak say ne ci senegal ak jullit ci Sénégal. ba ca yéefar ya. fu ne nga dugg fa. fu kooku xel war na koo daj nag. na koo daj. ndax day day day wéetal nit ñi. ndax nee na day wéetal nit ñi. mu ne mënoon naa def ci accident defoon. ah waaye yàlla mooy doxee noonu. waaw nee na lu mu wax day firnde da cee eh, ndax ku am njariñ ci nit ñi. day sax ci dafay sax rek. loolu la loolu rek. loolu dal na ko. loolu dal na seen amar. waaye du la neen waaye mi ngi ci jàmm. mi ngi ci jàmm. mi ngi ci wér. mi ngi naa ngeen ñaanal ko. bëgg nañu ñaanal Cheikh Amar bu baax. ni ma ñaan loo yi jàll. ni ma ñaan loo yi jàll. di ko ñaan ci sama sama ci sama bopp